bismillahi rahmaani rahim masambatuura abdulaat jëlal xalim sa xel xalaat njañi ginar were salaat du yoonu gaaya njëkk a jóg yéen mbokki mbaakol diglu leen xutbu bu rëy ba yéem na leen yéen waa Madina jekki leen gone du sóoru ku ko mag bii xutbu kenn amu ko bii xutbu mag ña yabu ko bii xutbu kenn jotu ko ñamana daw dun sóoru lëg musuma dégg ku ni mel ci Sénégal amul ngir jot na tey ma jóg xamal waa réew mi bii la xutbu nag waa mbaakol ñépp joobe ko ma ku jamaram yow xam nga ko jiitu na tey ngir woppi ko ngir faat na tey ngir nanga ko yëg dinaa la wax lëf ci juddoom dinaa la wax lëf ci jikkoom dinaa la wax lëf ci meloom wax la njaboot gëbul sikk digganteem ak Cheikh Omaru dinaa ko wax ci ak beru ngir day lu xóot bu ma taru su luy jaay nel aw ma njëg digganteem ak Cheikhul Xadim akum njàngam ak la ca moom dinaa ko wax kii mooy hakim bii xut bu yàlla moo ko ñàkk diggante mag ma ba jaxu dinaa ko wax jox ma loxo bii xut bu jar na jóg faxu di daw di daw ba far àgg xaaral ma wax la ak juddoom la pela feeñee xat ma moom dix-sept vingt-sept jamoom wala dix-sept cinquante-cinq ak feeñam am na ñaari wax ñeent fukki xat la gaaya wax la faatu Bamba soog a wax luy ak murit lii rek a jag am nañu wax ñeent fukki xat la faatu Bamba juddu it ngir yi wax xew na ci it ci ak juddoom lii Abdou Latif moo ma ko wax ne sëñ ma dun moo ko ko wax Abdou jàppal yi ñaari wax taarix ba ñul ay wuute nag ma wax la ñaari way juram ma mbondu xasta ma maram ñaar ñi ko séq nang ko xam ma wax la yaay jafam mbokk baraadi ne fa ndemeen moo jur way jur waneel ndemeen ni jaay jaxaat di moom ndemeen li xëy meenam yow nang ko yëg ma xujja xujja jaxate moo jur baayam duna xëti ma xujja xujja jaxate doomi muxtaar umaane rek baay baa ko dalal alquran mu jàng foofa dem demeen moo tax mu dégg alquran sariha moo ko njëkk a ñàkk bindoon na xam xamu harut cuune du bind ci harut kon nafu sarfu ak harut bii xut bu rek ami njëkk digganteem ak Sayxu Omar seenu diggante moo dëgër fa mul dajee bu wér falan xamante daa di bëgg Cheikh Omar laaj ko ay mbiram boole ca laaj ko ab dëkkam mu ne ko mbaa kol am nga waajal dinaa fa aksi nag lii nag ca baatin la xewoon ngir kaddu yen woon seen ndaje ga foofa diiwaan booba la lépp daa di jag ba mu jógee Makka la ñëw bawal di wër leeru sangu bawal leeru Tuuba daa di jafal booba la gis lu rëy ta mag lan ko wanoon fa kaabatu mooy leeru maam jaariyatu ka yóbbu nit ña jannatu na fi xéewal dootu fi jóg say xoomar booba la wëy fa mbaa ko leer ga daa di duy mokku jamaram daa di xëy leeram ga sar mu daa di moo agsi kër ma xu jamaram dal di ko jox ndoxu sam-sam fukki fan ak juróom la am fa kër ma xu jënan ko yëg fala bindee foofarima xol yëpp seex ñu am fala ngir téere booba dirima tijaaniya la fa tënk waxante na Cheikh Omaru ay wax yu nel ak bëru ngir yooya wax bañ ñu loru ñay nettali duñ ci dikk tuuba liman amana nag waylun liman ankara nag gaa yaa ko wax yo xam ko nag ngir weddi lii laa di fek diggante ma Seexul Xadim Sëriñ Tuuba wax na ci moom maqaamam xutbu laame moom maxu jamaram ngir am na njëg moo sëñ maxtaar alkokki yu la wax na yi xutbaani yu ñoo ci xeeti wàllu yu seeni garaat day yokk amoon na bis maram sala siyaare bamba mu ne ku la yow ku la jur maram sala maxu jamaram lii la fa teg na bis maram sala siyaare la yow ku la jur maram lii la fa teg keroog sëriñ bi laaj na ko maram sala yi ko maram sala daldi ne ko gannaaw saa baay laa juddu nag keroog sëriñ Tuubaa ne ko sa baay ci géej gi moo ma fegu day wàlluyu te rëy ndëggu ñëwug sa baay jox na ma mbég ma dikke moodu ibra nag abdu bu seex aminta nag ñoo ma ko wax li doy na mbég yàlla na seeni mbir di jag sëriñ Tuubaa daana siyaar barab ngir ku ko siyaar ngëneel yu rëy ci ay siyaar boole ca am ngëneel yu mag sëriñ Tuubaa yu na fa bant yu rëy wër la fa ku dem xabrum ba fekk fa ngir bant yoo yare na njëkk sët yo yoroo maram sala doon na siyaar bamba mile bamba wan ko këlli bile maak samaam daanan bokk daanan ko bokk di añandoo fa géej gi mooy àndandoo mokku na du dendandoo ma maroom yow nang ko yëg Tuubaa li man amana nag waylun li man ankara nag sooy weddi dal di halku nag ta seeni wax jàpp ko nag diggante mag maba jaxu ñëw na këram maba jaxu jox ko fetal li lan waxu soo guddee fan dana la fekk gannaaw njàngam maba la xew mbokku jamaram neema xaw lam junju maba mooy la xew bi xut bu doy na yéemu rek ma wax la sancub madinatu habdu bu seex aminatu habdu latif du lambatu maam jëla gis ne ko jàkk lappe la jógee sanc ko mo bala joor a ànd ko nga jox ma xel ma wax la ko mu wàcc foofa daa di ñàkk fam njëkk a wàcc mooy penku ba ñeen fukki xat ngir nattu ba am nattu wàccul ngir sanc ba kenn faatu fu fa di fi sëkk mu doxu wutal li ba mooy penc mi fa xabu ba as la def ngir nattu ba dikkal ko moo di ak lakk ab jullit fu mu nekk kandee xat ay xati xat ay xati xat dara xewul afa mu yit bii xut bu rek ami njëg ma wax la doom ya nii la doy ma dun mbekki am na may ma dem ba anta yow xam ko tey ma dun fatim mooy sunu mbek ma dun sala ma xuja sala jigéen ñamam maram sala ak fature marema la soxna xari yow nang ko yëg xari dem makka jaxate fa baaba paate jaxate mu am fa faatee demoon ba den ñaan fa say ko xamar ayib ñaan am na fa soxna xëri ñaan mooy maami mun taxaami mag maree ma dem ndob gajaga am na fa maane gajaga ak abdulehi gajaga sëtam ya a waaj ba jag maram sala kër muxtaar ñaxal fa kër sëriñ muxtaar am na fa yoroman yaakaar moom lañ wanoon këll ba rek màggal gala lay taarixal la ko waral nag ma dëggal abdu latif maa ko dikkal lu waral bis bi ñëpp jóg màggal gala lay taarixal li ko waral ma dëggal abdu latif maa ko dikkal lu waral bis bi ñëpp màggal ga laa lay taarixal la ko waral nag ma dëggal Abdou Latif maa ko dikkal lu waral bis bi ñëpp jóg lu njëkk daa dañ ko jëmal fa Tuuba lii laa la xamal ndaje mi nag li ko waral fa ma diilatu ngir sunu mbég amoon na bis ma jóg siyaar lay fatturee fale Dakar mu ne ma Abdou ab siyaar nañ koy na bis ma jóg siyaar Dakar mu ne ma Abdou ab siyaar nañ koy xamal Madina nag di ko màggal di fa siyaar ma jógee foofa daa di jaar fa sëriñ Moor jox ko xibaar mu rafetlu ko lii rëy na njëkk sëriñ ma dun rafetlu ko joxe ndigal màggali ko fa madinatu yow xam le ko lii la ma wax yow na nga ko yëg ma wax la an na 2000 la woon yàlla na sax suba ba ngoon ñu koy màggal suba ba ngoon góor ak jigéen xale wa mag 18 caaw baraax lu neema cey bur yàlla xamoon nu mu doy deesu ko xam lu dul ëllëg sëriñ caaw baraax lu neema cey bur yàlla xamoon na mu doy deesu ko lu dul ëllëg fa pegg fam doon jullee farankorop nee leen ale di ko siyaare moo nuy jàllee ku mel ni kii nee ko nikk alhaaji Maalik ñëw na fa siyaar barab ba yendu fa ay yoon yoon kii ñëw na fa Seexul Xadim lii doy na sëkk Seex Astu Balla yéena jawoon defar barab ba ngir am lu duun yéena ja sëñ madun amoon Seex Abdu taawu na ko jóg Seex Astu Balla yéena jawoon defar barab ba ngir am lu duun yéena ja sëñ madun amoon Seex Abdu taawu na ko jóg Abdu Latif lebal nga mbër bu mën a fay lottul ci bor barab bi nii nga ko defar bi xut bu bég na bége bég jàppal samaam doy na sëriñ di mu lay jariñ jëw nañ la sax far nañ la jiñ lu samaam joxoo ko njëkk ku seex Omar ko siyaar seexul xadim di ko siyaar alxaaji ma li ñëw siyaar ku samaam amu ko nag xamal sa njëkk xam la am xëppil sa bët xool ca kanam fexeel ba làq ay ngërëm doylul samaam mu doy la rek te jii ci réewum Sénégal kenn mënut a jóg defi misaal mokku jamaram abooru jaal kenn moom xamul na sak masambatu ren abdoulat yëg yëg nga tigee ci ay walaat coono bu rëy te nga xalaat taxawlul fii ba dooni mag